champion maa ngi lay Babacar yow tam maa ngi lay ziar Babacar ci loo ne am nga sant yàlla bopp tey mbay gu gi moo tax nga déplacé wu tey ñëw Medina don donte sa komba jege na lool lool lool lool mbay sama boy la sama frère la waaw day son ci tafaatin ak yeneen booy yëpp ah, tey boo xoolee booy yëpp a ngi fi xam nga ak champion bu mel ni Moussa Dioum jóge parcelle ñëw jàppale si mbay gu xam nga du ñu def lu dul di ci kontaan te xam ne lépp bawol la daal ñun ñëpp ndam lañ ko yéene te ñu ngi koy ñaanal te liggéey na yéen ñi ko xam ngeen ne moom liggéey na quoi franchement. mu mel ni sa combat ak Boy Niang li ci des bareetul dafa actuellement mën nañ ne fi mu nekk nii pare na 100 pour cent. non loolu kenn waxutu ko xam nga combat moom combat bu diire huit mois wala neuf mois boo parewul sa waay dañ la koy laaj loolu kay kenn waxu ko ñun kay bu doon suba suba dañuy seg bëri ji sax. sa diggante ak promoteur parce que fan yee amoon na benn jafe-jafe bu amoon ci benn jàkkaarloo ba mu am nu mu waxee que ni daal yoon dina tegu ci sa kaw affaire fu ngeen ci mujjee. yoon tegu sama kaw man bu man bu ma leen tegul yoon ñoom waruñu ma teg yoon quoi loolu moom dat clear dafa leer uh-huh. waaw ay ay ay ay frère lañu nag liggéey moo ñu boole ku ne day respecté sa morom xam nga man xam naa su sumay droit ci samay droit laa tegu xam ñëw naa la fa xew yéen ñëpp fekke ngeen ko yow xaw ma fa la fekk wala fekku la waaw man ñëw naa xam nga nit ku ne da am staff am ñu lay xelal staff bi ñëw nañu xool nañ affaire bi stable ñu nu ma dem sama yoon ma dem ah loolu la. côté supporter xalaatoo la huit booy ñaan noyé la ci parce que arène nationale loolu moom anyway quoi loolu moom wax dëgg yàlla yaakaaruñu ko quoi franchement ñu ngi ciy woo Bawol yëpp nag ñëw teew xam nga feesal stade bi. looy wax say supporter ci côté fair play bi. non ñoom moom ku leen xam xam ne supporteru Tapha Tine kuy yàq lam newu ji mosu ñëw atet mukk Tapha Tine fële mu ngi xeex wala lii non. xëj na kay mën nga ñoo attaqué mais après lan moo la ciy fekk est-ce que dina neex ci yow mais ñun moom xam nga toujours fair play la ñuy demee quoi wax dëgg yàlla yaa. mel tey nga àndal ak ñoom Sall Bambey gis naa gaa yëpp mu mel ni daal Tapha fi mu nekk nii ña ko daan wër rek ñoo ko wër. waaw xam nga nit moom balaa dara xew say mbokk quoi ñii moom su may raag lañ ñoom Ndiaytine Sall Bambey xam nga ay ñoom Cheikh Mbacke soo si maane ñoom laa fi neyal tey jii xam nga waaw ñoom laa yegg di àndal daal nañ ma bàyyeek ñoom rek xam nga. waaw dégg naa la sànq ne 100 pour cent bawal kon 100 pour cent bawal bi yëpp a ngi ci combat bi non loolu dafa leer loolu moom kenn waxu ko waaw wax dëgg yàlla yéen yéen a ko gisal seen bopp tey Medina gépp génn nag waaw ñu ngi woo Medina gépp ak bawal yëpp ñu ànd dem jàppale mbay gu yàlla may ko ndam quoi kanji mi yore booy ñaa di ensemble laaj naa ko mu ne ma combat bii bokkul ak combat yi ñu daan bëri bii lañ gën a jox gëdd waaw nit ku ne da ngay am ñu lay xelal rek am na ñu koy xelal man tam am na ñu mooy xelal kenn ku ne da ngay déglu sa staff rek loolu la quoi yeah thank you Babs